International. C'est international. abonné sunu chaîne YouTube yi door saa su nekk ay xibaar yu ci réew mi ak ci bitim Euh, Seyda Mariam Niass. d' accord euh, tey ak suba ñu ngi fi di wàcceel kaamil euh, pour Yaye Boye loolu comme que encore nekkoon nekkoon nga fi dañu mën rek ci ci ñu ngi sant yàlla bu baax ci yàlla mi nga xam ne moom moo ñu boole woon ak soxna si te ba léegi tamit dàqul te yàlla bu mu mu nekk sunu yaay nekk sunu sëriñ nekk sunu soppe. nekk suñ magu taalibe nekk suñ magu daara tamit ndax lu tax ma ne suñ magu daara euh, bu nekk daf lay wan ne man ci daara ji laa bokk ci daara ji ñun tamit ci daara ji lañ nekk kon suñ magu daara la nag suñ magu taalibe heure bu nekk daf lay wax ne la man taalibe Baye Niass la soo jegee soxna si sa cofeel ci Baye Niass dafay yokk ndax damay faral di wax ne moom benn naw la rek la am moom mooy Baye nawle nag du dara mooy olof dafay wax nawle mooy ki nga naw bugg a mel ni moom moom Cheikh Ibrahima Niass rek la gisoon ci kanamam gisut keneen su ngeen toogee di wax daf lay jàngal yu bëri ci Baye soo toogee di wax ak eh, Seyda Mariam ñaar rek la lay waxal alquran ak Baye amul leneen lu mu lay waxal alquran ak Baye kon suñ ne la suñ magu taalibe la foofu lañ ko jëlee suñ ne la suñ magu daara la foofu lañ ko jëlee suñ ne la suñ sëriñ la nag ndax sëriñ du sa doomu sëriñ mooy sa sëriñ mais sëriñ mooy ki la jàngal waaw ki jàngal yar la xamal la lu bari yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne man allamaka xarfan fa huwa mawlaaka kon képp ku la benn baat kooku sa sang la kon moom sunu sang la waaye suñu sëriñ la kon foofu lañ jëlee tamit ne sunu sëriñ la sunu yaay la ndax dafa njaboote ñëpp boo ñëwoon fekk ko ci néeg bi doo xam ne doom jum jur ak doom ju keneen jur jox ko ko ñëpp moo leen njaboote benn baat da koy di wax yaay booy yaay booy yaay booy kon suñu yaay la sunu xarit la ndax dafay partage ak yow ci yu bëree bëri daf lay ñemeloo boppam loo ñemewut a wax kenn da ngay ñëw taxaw di ko wax ngeen ci waxtaan loo xam ne sa mbiri vie privée la nga ñëw toog ak moom fii ngeen ci waxtaan mu la ci wax xalaatam kon juróom yi ñu wax yépp indi nañ firnde bi sunu sëriñ la wax nañ la jàngal nañi euh, sunu yaay la ndax moo ñu njaboote ñun ñëpp euh, sunu xarit la ndax dafay partage ak ñun dañuy partage waan ak moom sunu magu taalibe la ndax Baye Niass la bëgg moom la gëm ñun tamit ci buntu boobu lañ bëgg a gëm Baye bëgg ko sunu magu daara la ndax dafay wax ne moom génnul daara ci benn yoon kon loolu yëpp. mi ngi nekk ci Seyda Mariam mu nekk nit koo xam ne tamit nit ku neex a bëgg la tey jii nii bés tey bii nii dëgg rek moo ñu tàqaleeg moom waaye boo ñëwoon fekk ko fii fii lay toog ca boolu añ yi kaay añ boo nekk suur naa moom la ñëwal añ ñëwal añ di la neexal ba nga ñëw añ gis naa ci moom jukko yoo xam ne nii eh, sunu yaay Ndeye Aïchata bi ñu ko laajee jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jukkoom mooy alquran ah Seyda Mariam jikkoom mooy alquran euh, Baye Niass dañ doon wax ne euh, jumaa juy dox la ci kaw suuf ndax foo ko waxtu julli fekk dana kàbbar julli Seyda Mariam jumaa juy dox la waaye alquran buy dox la tamit ndax heure buy wax ak yow ci alquran lay wax ak yow Seyda Mariam boo comprendre dara ci alquran doo mën a wax ak moom ndax heure boo ne ko salaamaaleykum am na aaya bu lay wax ci alquran nga xam ni mu bëgg a wax yow am na aaya boo ko war a tontu. kon kooku dëgg-dëgg royukaay la euh, nit la koo xam ne ni euh, mu ngi juddoo ci ñaari nit ñu baax Cheikh Ibrahim Niass ak sunu yaay wala sunu maam Seyda Aïchatou Sarr ci ñaar ñoo xam ne ñuñ tànn la jugee ci luñ tànn jugee ci luñ tànn jugee ci luñ kon ñaar ñu baax bi mu waree jàng mu jàng teel a mokkal alquran lool it waajuram bëgg ko lool moom ci mu bëgg waajuram ci mbëggeel gi mu bëgg alxuraan lépp lu mu am rek ci alxuraan la ko amee mu nekk nit koo xam ne nit ku am ijaaba la ijaaba suñ koy wax mooy nit ku nangu ñaan la fekkee naa kenn waxuma maa ko fekkee maa ko gis ñuy tukki ci Mauritanie am ko am problème ñëw di ko wax mu am lu mu ko bindal ne nañ ko naan bu ko naanee insha allahu rabbi du fanaan ci kaso gi waa bi mu mu jël kii ba rek may benn waaye ñu ko amandi ah, lii de gëw ma ko ndax nangam sëriñ yi gëw ma ko am benn euh, prisonnier bu ne ko lii kan moo la ko jox mu ne ko benn doomu bàyyi gis moom moo ko jox mu ne ko may ma ko kooku may ko ko mu naan ko kooku bi mu ko yi ñu xëy oo ko ne ko kaay mu ñëw ñu ne ko yow defoo dara bàyyi nañ la nga dem waaw léegi nag biñ àttee kii nga xam ne nii Seyda moo ko bindaloon loolu ñu ne àtte nañ ko tëj nañ ko deux ans man ko rek ci ci ci ci audition bi man maa ngi fa woon ci après Seyda bi ñu ñëwee ci kër gi mu laajte ndax kii xanaa naanul li ma ko jox ñu wax rakkam bi mu laaj ko bi mu demee ci biir mu laaj ko mu expliqué ko lii. mu ne Seyda mu ne nañ ko bindalaat beneen ñi bindal ko beneen lundi ci guddi mardi Seyda jugee fa ñëw euh, mercredi wala jeudi daal weeru gàmmu bi feeñ xam nga bu weer feeñee dix jours ak gàmmu gi kooku gàmmu si na kooku noonu ñu àtti dóor ko deux gàmmu si na ci gàmmu googu. te waxuma loo xam ne dañ ma ko nettali man maa ko fekkee lim nekk ci ci vidéo moo tax bëgguma tur tudd turu waa ji waaye loolu man maa ko fekkee kon ku nangu ñaan la toog nañ fee ñu coup d'état benn président réew jabar ji o ko na ko sama jëkkër ki ko coup d'état ba léegi gisuma sama jëkkër xaw ma nu ñu tëddee mu am ñun def yónni ñi ñi dem yóbbu ko bi ñu demee ba def yi mu wax ci la ko matul 48 ci la ko jabaru président boobu ñu coup d'état ne sama jëkkër de oote na mu ne ko incha allah dana dellu si ci sa tànk yi kon ku nangu ñaan la boobu tim dama ko fekkee xam nga li gën a neex ci wax bokk na nga ne man maa ko fekkee te président réew ba tamit xam naa ko kon nitu ijaaba la nit ku nangu ñaan la man yónni ne moom may dem Mauritanie carte visite am la bind ci gannaaw ci arab Cheikh Mariam bintu Cheikh Ibrahima Niass xaadimatul Quran mu caché ko fu ma jo jaar ci Mauritanie diggante Nouakchott ak ak ak Rosso am na lu mat onze poste contrôle fu ma ci jaar su ma wanee kii rek carte visite bi dañ may wax bisimilah jàll te loolu du du ci man ci ñaan yàlla am la carte visite boobu ba léegi maa ngi ko denc kon loolu mooy ci nangu ñaan yàlla yoo xam ne man dama laa wax ne la man maa ko fekkee ma ñëw wax la ci tabe kan mooy Seyda Mariam Seyda Marème mooy nit koo xam ne lépp lu mu am daf koy jox jaamu yàlla yi lim ñàkk mu laaj ko yàlla Seyda Marème dañoo toog tabaski jot am benn ONG bu ko oo jox ko ay xar 41 xar mu yónni ma dem jëli ko bi ma demee jëli ko ma ñëw mu ne ma ñaata lañ la jox ma ne ko 41 mu ne ma loolu ndaw la de ma ne ko ah ñes bi ngi nii mu génn taxaw xool xar yi ñu ko xoolee defar lis ne ku nekk nañ ko jox ku nekk nañ ko jox bu ñu jeex mu jëm daan lu tolloo quatre-vingts yokku ci joxe yépp mu jeex dëgg dëgg dëgg dëgg ñes yow yaa baax Seyda Mariam nit la koo xam ne ci moom laa gisee nit koo xam ne loolu yàlla moo ko wax ci boppam hal min mazidin ndax yow yàlla am nga doolal yàlla ne la ankañ wala day naa mazid am naa lu mën a dolli Seyda mooy toog fii am xaalis di la may nga koy ñaanal di ko gërëm mu lay dolli naan lay hal ma mazidin nga naan koy wala dali naa mu ne ndax ndollal am nga nga ne ko ndollal am na mu lay dolli kon kooku ci tabeem nit gënu ko Seyda Mariam man nekk nañ gàmmu Medina Baye mu yónni ma ci banque EGBS euh, e bi jox ma chèque chèque bi photocopie maa ko denc ba léegi ma dem retirer ko fa 2 millions ma ñëw ma indi ko maa ngi sol benn grand boobu naar ma def ko ci mu ne ma Barham ana amaana bi indi nga ko ma ne ko waaw mu ne ma baax na ay nisan fa nekk ba nit ñi génn mu ne ool leen ma oo ma ma ñëw mu ne ma tëjal buntu ma tëj buntu ma ne ool ma jiw ma ool ko jiw mu ne ma ana xaalis ma ne ko mu ngi nii man ak jiw ak yàlla rek mu yekk ci xaalis bi may ko kooku noonu kooku man maa ko fekkee kon buñ la waxee ci tabeem wax nañ la ci mbaaxaayam wax nañ la ci nangu ñaanam wax nañ la ci tabeem ñi ñëw nag ci bëgg nit jëflante nit ak nit doomu aadama ak doomu aadama Seyda Marème yaay ñëw seet si ko fii nga toog moo ne la nga pare li nga ko doon wax nga ne ko damay ñibbi yaa booy mu ne looy dem doo xaar añ nga añ ba pare nga ne ko yaa booy añ maa ngi dem mu doo xaar ma may la paas loo yàkkab bi bu la mayee paas nga ne ko yaa booy man maa ngi dem moo ne loo yàkkab bi doo xaar ma ñaanal la yow nit bu la defalee teranga yow mi mu defal teranga yaa war a ñaanal waaye moo lay defal teranga ba pare ñaanal la yooyu yëpp lu tax mu koy tardé parce que xéewal yi nekk ci gan moo tax du bugg bàyyee gan gi mu dem soo fi toogee ba guddi mooy la xaaraatal reer nga xaar reer mooy la fanaanam ñëw ci moom ma ne ko nit ñi di jëlee dinaa la ko wax mu ma lan la ma ñi nee ne dañuy ñëw namm la bugg laa seet bu ñëwee seet si la nga ne leen xaar leen añ ñu leen paas xaar ma ñaanal nga ñaanal nga ne fanaanal mu ne ma barke ma ne ko barke bàññis mu ne ma bàyyi naa ko waaye bàyyi naa ko mënu ko ndax eh, mat ak jikkoo waaw ñu toog tuuti am ku ñëwaat mu def loolu maa ngi toog fii di ko bësal tànk bi mu ne ma baraan gis nga ko de ma ne ko ma ne ko léegi xam naa ne sa jikko la waaye nit ñi ñoo la bëggee noonu gannaaw nit ñi ñoo la bëggee noonu loolu kenn mënu ci dara kon buñ la waxee ci juddoom wax la ci mbaaxaayam wax la ci am ijaabaam wax la ci jëflanteem ak nit ñi ñi ñëw nag ci mu jël dundam ci tënk ndax li yëpp xamit ci jataay mais ci tënk mu jël dundam da koy fekk fii mu toog xaalis am yi ñëpp mën nañ koo seede ku ñëw mu yëkkati di la jox. Eh, bàyyi bunt bi. ñun ñu bëri ci ñun. ñu bëri ci ñun. bi ñuy dem makk amuñ vingt ans. da ngay ñëw nuyu ci ko yow mos naa dem màkk. ma ne ko déedéet mu ne la diw bindal kii boole koo ci ñuy dem. am na passeport déedéet mu génnee dama dem am nga carte d'identité déedéet mu oo waa ji defar d'identité mu ñëw fii defaral la d'identité. defaral la d'identité fii defaral la passeport ñu bokk dem màkk. kër gi xale boo fi gis ñu ci bëri ci ñoom bi ñuy laaj bi ñuy laal kaabu gi amuñ vingt ñu ci bëri ci ñoom moo leen di yóbbu ñu dem ziyaare Cheikh Ahmad Tidiane moom ndam la ci moom yow man mosoo am nangam maa ko def ñu bëri ci ñoom moo leen njëkk a dugal avion moo leen njëkk jox dollar moo leen njëkk jox euro moo leen njëkk a jox passeport moo leen njëkk a jox diplomate moo leen njëkk jox lu nekk parce que loolu yëpp loolu yëpp loolu yëpp lu tax mu ko doon def daf ko doon def pour bul ñee kenn daf ko doon def ko doon pour bul ñëwee kenn daf ko pour suba lii yëpp bum la jaaxal ay dugg naa avion ay dugg naa business class am naa passeport service am naa passeport diplomate ay dem naa nangam moom dafa jàppoon ne kuy jàng alxuraan yaa war a gën yaay booy Seyda ci avion yi la daan jàngalee xale bu ngeen waree jugee fii dem Nigéria mu leer ko ne trois heures de temps ngeen def ci yoon yow sa àlloo dafa sori mën ngeen ñëw ba parce que xale yëpp lay defar passeport mën ngeen ñëw ba aéroport rek mu ne génneel ma passeport diw mii dafay dem bu ngeen ñëwee ci avion bi mu ne la eh toogal fii sama wet commencé di jàng diggante fii ak Nigéria trois heures de temps la trois heures de temps boobu yow lu mu néew néew mën nga cee tari genn wàllu kaamil boobu loolu la doon jàngal boo ñëwee ci hôtel yi gën a baax ci àdduna bi ci lay jàngalee xale soo ko waxee mu ne la fii daara rek moom la yelloog waaye yelloog ñëw tëdd dina law kon yal nañu yàlla fayal suñu yaay yal nañu yàlla fayal suñu sëriñ euh, lii xat-xat la rek moo tax mënuñu ñàkk seede ni di gërëm ci tamit njaboot gi yëpp ci njiital Cheikh Tidiane Ben Oumar Kane bi nga xam ne moo uuf njaboot gi yëpp ci gannaawam suñ ko tuddee tudd nañ njaboot gi yëpp ñun ñëpp benn njaboot gi lañ yaay booy képp ku bëgg lu baax bëgg nga ko képp ku bëgg lu baax bëgg na la képp koo xam ne dangaa uuteeg baax rek moom da ngay uuteeg yaay booy yaay booy mooy ñëw sa kër jël sa doom yóbbu ko pour xamal ko alquran bu paree ne la sa doom a ngi noonu ci moom laa gisee mu jàngal la ba nga mokkal alquran mu ne paree bu ci yow dugal la école ba nga jàng ba pare loolu doy bu yóbbu la nga jàngi dem jàngi ba am say diplôme nga ñëw jël la nga nekk employé mu lay fay weer yal nañu ko yàlla fayal wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. macha allah macha allah.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 ak ci àdduna bi seen groupe d'information seen info international ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg